dina yëngu te dina dënnoo maa la ko wax. maa ngi woo fan mbokk yi xaaj si incha ni ñu ko kenn rate dafa nar a neex. proudly sponsored We now join the Central Focus Office for the weather report. I'm afraid we might bring the weather report in our 10 o'clock news bulletin. And before we take leave of you, a quick reminder of the day's top stories. The first Gambia-Turkey Joint Economic Commission meeting is underway in Banjul as the two countries move to forge business and investment ties. The African Development Bank has, the, has pledged to set up a special fund to finance the country's massive infrastructure projects as the ADB observes its golden jubilee. And a deadly violence in northwest China China has left over 30 people dead, prompting Chinese authorities to visit the region and commiserate with the bereaved families. Well, that was all in this edition of the News at 8. Thanks for the pleasure of your company. Stay with GRTS and enjoy the rest of our interesting programs. seetaan ñu ni neen la kon nag ñu ni neen la fii si GRTS ajuma bu nekk suy juróom-ñetti waxtu tegee ak genn waal ñu bamtuwaat ko dimaas ñaari waxtu ci bëccëg kon nag bu ko kenn uute dafa mel ni programme bi euh, xale tax mu jóg ak mag yi nga xam ne dañ sàggan ni man nga xam ne mënuñoo yar programme bu am solo la nekkul na xale yi rek a koo déglu nekkul na mag ñi rekk koo déglu ñëpp koo déglu balaa ma door rek dina njëkk a introduce xale yële e, nga xam ne ñoo di soppe ñu ni neen la ngeen jóg taxaw ñu gis leen soppe ñu ni neen la jógee Talinding jóg leen taxaw ñu gis leen e, ñoom seen seen seen e, mbooloo mi nekkul ne dañ jóg rek pour tëgg sabar ak i fécce ñoom dañ ci boole diina islaam boo gisee seen muuraay di nga xam ne ñoom dañ boole islaam ci mbir yi eh, dama doon def appointment ak benn kilifa mu maax ne xale yii ñoo ko invite Gaddafi conference soppe ñu ni neen la keroog laa door a xam xale yi eh, mu di programme boo xam ne it nekkul ne Gambie rek a koo seetaan ba Suède ba Norvège bitim réew dañ koo seetaan bu baax a baax wax naa ko ay da ay yoon eh, wax dëgg yàlla programme la bu am solo Déthié Paa Diouf kenn la woon ci programme bi man maa ngi ci Gambie fii waaye ki ma ko tàggee Suède la ma koole ne ma ah ñu ngi tàggee Paa Diouf ci rajo bi ci télé bi ma ne ko ban programme mu ne ma ñu neen la mu ngi ma ne ko man aw ma laaj taaluma télé <laughs> mënuma koo gis eh, loolu kon programme bi yaatu na yaatu boo xam ne eh, am na solo loolu crédit bi dinañ delluwaat GRTS eh, gën a yokk seen loxo bu baax a baax may sàkku itam itam ci radio bi programme bu mel nii bu newut bii sax bu mel nii ñu ko jàllale ci rajo bi walla di seen programme bi nga xam ne moom moom mooy dox nii ñu ko indi ci rajo bi rajo bi di ko di ko yaa parce que rajo bi yaatu na fi mu nekk nii gars yi eh, télé beeg rajo bi ñu ngi fi Ablaye Gassama ñoom eh, Abdou Touré Baye Sagna ñu ngi fi loolu moom seen liggéey la programme bu mel nii daal wala bii ci boppam sax mu jaar ci rajo bi itam ñëpp mun koo gis ñu ngi leen a gërëm baax a baax xam naa docteur moom eh, ñëpp xam nañ ko yàkkamti nañ waxam docteur Omar Dia eh, nekkoon nañ Cairo Égypte <laughs> mooy won suñ njaatige bu ñu naar yi fayaan pound yooyu nga xam ne ñun xamuñ ko moom moo ñu ko wéccil eh, dollar <laughs> ku am xam-xam la tey tax waxtaanam am na solo. aoudu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاتان والسلامان على حبيب الرحمن محمد خير بن العدنان وعلى آله وصحابته ومن نهج نهجهم وصلت طريقهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla ak ci nuyu suñu sang muhammad alayhi salaatu wassalaam di sant bu baax nag ñi ñu boole ci ndaje mu tedd mii ndaje mu rafet mii di kilifa di soppe ñoo xamante ne seen taxawaay yépp luy jëriñ nit ñi la nit li tax mu tudd nit mooy bu demee ba nga xamante ne day jëriñ nit ñi ñu ngi sant yàlla nag ci ndaje miñ gis ak ci liñ ci gis ak wax yiñ ci dégg ndax li muy tegtale rek mooy ñu ngi koy génne ci aada ju set wecc di ko yóbbu ci xaqiiqa bu set wecc nit ku am fulla kumu mooy ku nga xamante ne yàlla fexe na ba takk yëngoom setal ci aada takk ko ci xaqiiqa ndax dund lu ñu fi yàq xaju fi kontaan naa ci li ma gis benn ndax ma ne ñu ngi koy xëcc bu baax di ko yóbbu ci xaqiqa pure mooy di ko yóbbu ci sharia ndax foo gis ñu oo kilifa yu toll ni yéen am na luñ ci namm ñaareel ba bi ma ñëwee fekk naa ñu commencé woon bi julli jotee ñëpp bàyyi dem dem ci yàlla yàlla ku koy yaakaar da koy jox lim soxla ñetteel ba gis naa fi ñu fi oo léegi ne ñooy sopp ñu ni nen la gis leen ñu cuubu lool ci diine ñeenteel ba ñi ma jiitu ci wax yépp muy xale yi ak suñu yaay li ñu wax yépp boo ko nattee dangay gis ne ba nga koy natt ci ndabal sharia mu dugg ci kon lii yépp yi ma kontaan lool la ci daje bi diñaan yàlla mu def ko daje boo xamante ne ëllëg bu ñu dajee am dañ ko dana bokk ci misanul xasana bala maa dugg ci liñ ma sant danaa sant xale yi njëkk a wax foo gisee xale bu génn yaruhut am na mag mu yaruhut bu ne ci kër gi nañ wax ci mag ñi tam xale bu génn yaruhut mag arab dafa wax ne ku ñàkk dara du ko mën a maye al faqidu shay laa yu'tihi waaye ku yaruhut doo mun a yare bërki démb rek laa am kenn man su saa yu may jàngalee heure bu may jàngalee saa yu ma jàngalee ci classe bala maa pare xale ya fa nekk ña ci ëpp danañ dem solu te it dañ koy def ngir doyloo yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam fan yële rek am na xale bu ñëw ne ma ngir yàlla dama bëgg a sol lu baax ndax fu mu nekk nii saa yu ma toggee sa kanam damay rus ma tukki ñëw indil ko ay yére yu baax mu dikk ma ne dana ko sol wig bi passé ma dem mu ñëw ci classe bi solo ko ma wax ko mu ne suma yaayam a kon yal nañu yàlla may kilifa yal nañu yàlla may kilifa parce que fu mag mu yaruxu nekk